mbokk yi ñu ñuy topp ci Leewtoo TV ñu ngi jàkkaarloo ak suñu papa waa Thierno Ndiaye bu TFM di suñu doyen di ka nga bii lu mu wax ci làmb dundal papa ñu ngi lay ziar. maa ngi leen di ci suñu bopp. de guerre bëri na bëri ba jeex amateur li muy seetlu dafa rëy waaye lu ma sàkk nga xam boppam te nag da ngeen di bëggul soobu ji nañ ni kii revanche kii revanche mais am kàllaama jot ci moom lay doon bu gaawee bu yeex maanaam ki mu ñëwoon di njëkk moo doon mu neex bu la bëree la ndaanaanu bëre kat dafa jeexal kaamili bëree boo defee erreur mu daan la te bu la nee cappet wala nga koy yëg àjjana ci ba set li la bindoo. loolu mooy jëli revanche lan moo ko war. waaj ñëw li ngay sàkk mooy dama jël revanche daan nga jël si revanche pour daan la. boo koy jël si revanche est-ce que war naa xaar. xaar dina am ci moom ñàkk xaar dina am ci moom lépp nga dépendre ci préparation ak stratégie bi mu indi. mën na ñëw soobu ñu daan mën na ñëw xaar di wut bunt di wut li muy wut bu ko gisee. adversaire bi ñëw loolu gënaloon ko soit adversaire bi def ouverture bu gënal. journée boobu mën naa wax ne kenn kay rek moo ko àndal moo ko sauvé combat boobu ñëwal ñu ci dëkk ak ak ci euh, avenir wu kenn kay rek. non kenn jëlaat ñu. nañu naa mooy mbër. bàyyi ba nekk ana Cheikh Seck président Jaraaf ana Amadou Diaba ana Bamba Fall ana Cheikh Ba ana Youssou Ndour ana ñeneen ak ñeneen ñëpp ñëpp dañu plongé ci combat bi ndax seen doom moom it moo xam couleur yi muy défendre adversaire doo ko sous-estimé maa ko man maa ko man maa ko man maa te dajeegu leen wóoru saa yoo ko sous-estimé jox cër ci biir combat bi cëralante moo ci jën jox ko cër boobu ko jox cër boobu du ko daan jox woon cër it du ko daan ci biir bëri bi dañu bëri ñu rëy de rob taxabal nga jéggi nga jéggi nga dellu ci ñoom ñu ñu ne fànn la fii ni nii ngay teg sa tànk mu dugg ngay rëbee sa tànk bu sañaxal ngay dem mu kàlla kalu biir ànd ak yow ngeen dem bëre bëre na ñu nag waaye yàlla moom la jox ndam Modou Anta il n'a pas à démériter ba neexoon du ma bëre ngeen kay rek kon bu bëre moom daanu na ci wutal beneen combat delloosi ko demul fenn lamb ji jeexul. Fadilou Diène. Diène moom koy ñaanal yàlla tam yàlla ko jig bu doon gënal a jiw ci moom di ko boo xam ak supporter bi ñëpp di ñaay rasu. combat royal bi Ama daw mu génn la fekk mag ñi ak mbër mu mag mu toog wan mag ñi boppam ba ñu xam ba jox ko cër bi mu moom mu doon roi des arènes te bëreeg roi des arènes roi des arènes mooy favori bi mooy favori bi ndax dama yore yaa ko bëgg a jëli ndax ama dina ko jël am na ko jël yàlla ndax mun doon dina ko tey am dina ko ñàkk yàlla fekk dal ci jàmm seetal ci jàmm ñëpp ñibbi ci jàmm génn ñu réew mi génn ñu xam ne ñaari Sénégal yi ñoo leen di am ndam sax ñu jàpp gën ñu ko réeraloo ci guddi ñu ne ci ëllëg seen ñu déggee doom wala ñu aña doom làmb suñu royukaay la ci làmb wante suñu référence la ci làmb benn question rek laa lay mujjee laaj ban ban combat moo des ci sa bopp ba léegi nga xam ne boo ko rek xam ne combat boobu doo ko mu ko mbékaay trois bu daan gul doomu Dakar keroog dégg ku bëgg làmb keroog bëgg ak yeneen ak yeneen ak yeneen yeneen ak yeneen yu bëree bëri man góor gee daal moo daal adduna di def yu bëri di bëri daal nañu bëri adversaire yi ay combat yu bëree bëri adduna yi def yu bëri bëri ba maam daan ko trois fois léegi la rek. Oh, non ñooñu dañ daan bëre honneur. teraanga buñ ci am bokk bokk seen mbokk ñëpp. nag wala daane rek pakete naa la looy bala nga may jote. loolu loolu day day lamb baaxul li muy bëri di bërewaat di bërewaat di bërewaat da yow daan ma 800 ou 700 benn victoire terewul ñu ay xarit na xale yi delloo ci loolu parce que jur tey ñi fi nekkoon démb bu ñu ko yàqoon tey du baax ba ñoom ñu ci nekk ci ci dëkk ndama ngi ci ngi ci ngi alala ngi ci ngi ci ngi bëri waaye ñoom ñëpp combat yi combat yi suñu neex bari na. moom moytu wante bi moo bari kon. dégg nga waaw mais nañ ko teg nañ ko teg te xale yi di ñëw soxla nañu mag. ndeysaan na mag ñu bëree ak ñoom. lambu tollatul dem naa sama yoon déedéet. bu la créé encaissé xaalis bu la jox xaalis. ku la créé encaissé xaalis. bu la jox xaalis jërëjëf père. man na ko torop Seydina Muhammad